waaw Matar Ba euh, mën nañ ni nitu Macky sàll la président de la moo ko wóolu woon bi mu koy wóolu sax boobu ministère am ñëwagul bi Macky nekkee premier ministre conseil municipal bi Matar Ba sa la bokkoon mu ne leen Matar Ba mi laa wóolu def ko maire ñu voteel ko mu nekk maire xom du dëgg yàlla dogal mu am magam bu nekk Fatick ku ñuy wax Mbagnick Ndiaye nekk ministère des sports moom tamit ñëpp xam nañ ne sonnoon na si arène nationale bi Mbagnick Ndiaye jóge fi ñu indi Matar Ba Matar Ba aussi biñ ko indee ah, yaatunu wax dëgg yàlla oyof na si si monde sportif yi boo ko wooyee dina la wuyu boo nangu na waxtaan am na solidarité am na social dëgg yàlla bari na lu baax lu muy def si njabootu sportif man mii rek léeg-léeg eh, benn sportif am problème ma woo ko mu ne mën a ñëw mu dimbali ko te yàlla rek a tax waaw te avant xamu ko même des fois mbër woo ma am problème ma ne ko wool mataar Ba mu woo ko ne ko président du jaañal wax ma wool mu dimbali ko te yàlla tax donc bari na yu mu doon dimbali ay nit si wàllu social si sportif yi bari na taxawaay yi mu taxaw tamit ci sportif yi donc bari na aussi fu mu yóbbu sport ñëpp dañ naan wax sax Matar Ba làmb la fi nekkal ndax rek courage bu mu am si làmb parce que nit ci cosaan la donc yàlla may na ko tey nekk na ministère des sports ba jot Coupe d'Afrique mu ngi doon waajal dem Coupe du monde deux mois suñu borom dogal président de la République teggi ko fi metti na nag tous les sénégalais ak sportif yi waaye nag président de moom mooy xool ku muy toog ak kuy toogul te xam naa ne Matar nitam la rakkam la jarbaatam la léppam la moo tax man xajuma seen diggante li ma xam daal mooy xëy na président am na beneen xalaat bu mu bëgg Matar liggéeyal fa Sénégal kon dañuy bàyyi noonu rek xam ne président mooy nommé mooy folli folli na Matar Ba neexuñu nag buñ sañoon mu toog fi mais lu président def it ñun mënuñu si wax dara. dëgg yàlla. bu ngeen sañoon mu toog fi kon loolu rek muy firndeel euh, liggéey boo xamante ni gis ngeen ko. liggéey na vraiment liggéey na vraiment def na fi lu bari def na fi lu bari si sport loo xam ne ministre yu bari defuñu ko fi. waaw kooku nag vraiment dañ koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér xam ne dund dund gu jeexul lu nekk xaj na si man de maa koy encouragé woo naa ko keroog bi loolu amee encouragé ko maa koy encouragé di ko ñaanal yàlla gudd fan ak di ko ñaanal yàlla na ko yàlla fay xolom di ko ñaanal aussi président it yàlla na am si moom yeneen yaakaar pour dénk ko leneen si réew mi parce que vraiment nit ku baax la daal te fees na place am macha allah def na lu mu war a def si sport. Euh, ginnaaw demam amu dara lu ngeen yaakaar ne liggéey la ko ci làmb te bu demee moom mooy dara sooxe. na liy sooxe mooy ki fiy ñëw mu yànq ba jar dara ma koy ñaanal moom it fi mataar yam mu liggéey lu ëpp loolu yàlla may ko wér-gu-yaram. may ko xel may ko xolu muñ ak yaatu xolu muñ ak yaatu ak oyof oyof c'est très important mu bañ a diis mu oyof yaatal sportif yëpp déglu ay wax déglu xalaat euh, di jokkoog doomu aadama yi parce que moom jiitewul lu dul ay doomu aadama nit nag boo jiitee doomu aadama da ngay déglu doomu aadama te président da sas ne jege leen population bi parce que ñoom jiitewuñu ay tubaab jiitewuñu ay jinne ay doomu adama lañ jiite ku jiite ay doomu aadama nag doo sori doomu aadama yi du dëgg parce que doo leen sori doo xam seen soxla doo leen mën a fajal dara donc dañ koy ñaan mu jege coupe du coupe du monde bu ñu jëm yàlla may ko si ndam yeneen sportif yeneen sport yi nga xam ne muy 49 fédération yëpp yàlla may leen. ay ndami ndam te mu jig ko waaw loolu lañ koy ñaanal yàlla defal ñu jàmm ñu ñëpp làmb aussi am na fu ko Matar tegoon bu ñëwee mu xool fu mu koy eggali yeneen fédération yi noonu ku nekk rek fi mu nekkoon nga nga xool ni nga koy renforcer jóge fa continuer moo gën. Mm-hmm. dañoo gis aussi ministre bu fi ñëwee doon bees day commencé ay consultation ci ñoo xamante ni wóor na ko ne eh, ñu jàppale ci sport bi. consultation yi yow moom kenn mënu la cee génne ci wàllu làmb ministre bi commencé na ko ci yow wala déggante. nañu woo na ma ma ñaanal ko encouragé ko ne nag yenu nga yanu bu diis jox na dénk nañ la lu loo xam ne nii ki fi nekkoon neexut a remplacé waaye nag góorlu nga topp si ay tànkam parce que Matar mu dëgg yàlla ku dénk ministre des sports fu mu toll nii. Matar ba macha allah donc moom it maa ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam bi Matar am ak fi Matar yemoon yàlla may ko ndam lu ëpp loolu ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sportif yëpp jàppale ko mais xamal sportif yi àdduna noonu la Matar dafa am kum fi remplacé woon moom it dañ koy remplacé président moo am mandat mooy xool ku ko neex mu nommé la kon kooku tamit dañ si ciru président la neexuñu nag buñ sañoon Matar da yàgg fi mais tamit nañ xam ne ki fi ñëw doomu réew mi la Sénégalais la comme yëpp tamit nañ ko jàppale. beneen bi moo euh, <coughs> waaw il faut il faut loolu moom il faut ministre bi seet euh, nu ñuy def. ba ñu teg fa euh, directeur mu mun a gérer gestionnaire bi et ñu bañ a fàtte ne tamit département Pikine la ne ñu xool et puis bari na tamit nettoyer parce que xam nga am bu amul gestionnaire du neex des fois da ngay ñëw toilette yi salté xam nga femmes yi sax gis naa ñuy góorlu ñun dañuy fa dañuy ñëw jàppale leen si góorgóorlu bi mais des na bu amee koo xam ni tey mooy directeur stade bi. moom mu jël ñoo xam ne uniquement dañuy nettoyer stade bi defar entretien bi loolu dina si baax parce que parce que arène bi aussi vraiment des fois nga ñëw di tuur ndox day metti donc loolu yëpp aussi war nañ ko defar defar toilette yi mu gën a rafet moo xam ne daal gestionnaire bi moom ñu ngi koy xaar incha allah.